بسم الله إن ولي الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله بكمي يومي دي بلو وقتانوي لوني ساكوتي يو غجولي تي سنغب سنغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دونتي دنغنان صلى الله على محمد بكي نويل تومبيني نكون رك muy waxtaane salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ak i njëriñam waaye dama bëggoon fàttali rek tuuti bala nga dugg ci tomb bi li ñuy fàttali mooy ne bi nañu ci fukki guddi yi mujj ci weeru kor bi te muy guddi yi gën ci guddi yi am yépp bépp jaamu yàlla boo ci def yëmu tëkk nga defoon ko ci yeneen guddi ak guddi gu mën a doon guddul ñoom ndax lan dañoo jàpp ne laylatul qadar mu ngi ci fukki guddi yu mujj yi nee ñu laylatul qadar génn fukki guddi yu mujj yi ci weeru koor tey laylatul qadar suñ borom moo wax ne xayrun min alfi shahr guddi googu moo gën junni weer waxut junni guddi waxut junni bis waaye junni weer junni weer nag mën nañu wax ne à peu près mooy trente mille guddi wéri junni guddi kon genn guddi rek googi moo gën wéri junni guddi muy wane ne lo ci def ci lu baax moo gën fanweeri moo gën wéri junni yoon ci boko defon ci geneen guddi gudd gudd guddi laylatul qadr kon nak loola tax ñu di leen soññ ñu gën a fonk lépp luñ daa def ñu di ko yokk guddi yi nag muy fukki guddi yu mujj yi nag yonente bi sallallahu alayhi ak i saxaabaam lu ñu yitte woon na dañ koo joxoon yitte lool joxoon ko solo lool waaw ba nga xam ne lépp luñ daa def rek bu guddi yi teroo rek dañ ko ci yokk sayyidatuna Aïcha nee na euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nim daa farloo ci fukki guddi yu mujj yi ci weeru ko nee na daw ko farloo ci yeneeni guddi donte ku daa farlu la ci ci jaamu yàlla bu baax a baax a baax waaye ci fukki guddi yi la daa raw nee na dañ daa yokk lépp luñ daa def ci topp yàlla ci jaamu yàlla ci naafila ci sikkar ci jàng alquraanu karim ci mbooleem xeeti jëf yu baax yi dañ ciy sàkku ngërëmal yàlla luñ ci daa def rek dañ ko daa yokk ci fukki guddi yi kon nag ñoo ngi leen soññ bu baax ñu gën cee gën a ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax ndax tàmbali na bis tay tay tay tey mooy ñaar fukki fan ak ben kon guddik biik ci la guddi kon li ci dess nañ ci gëna gor ko lu baax ndaxte li ñi def mëna a dajeek laylatul qadar donte xamuñu ko waaye dañ ko ci dak ndax munta ñak mu doon genn ci fukki guddi kon nañ ci gëna gor góorgóorlu lu baax kon niñ doon waxtaane moy ci tombu biñu nekkon fan yi muy salatu ak yi njariñam أب الحافظ السخاوي دفوخنا العراقي وخننا سن بروم سبحانه وتعالى بو جليت يونتبي صلى الله عليه وسلم ديم تي جلي تيو فك يون كسه من بو جليت يونتبي صلى الله عليه وسلم يالا دنا جلي تيو فك يون واي دالا تي دوليل يكتي لفك درجه سيبل لفك نياوتيف bindal la fukki jëf yu rafet dal di def sa salatu googi mu mel ne ku goreel fukki jaam maanaam boo jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon la wax benn yoon sun borom subhanahu wa taala dana julli ci yow fukki yoon yëkkati say daraja fukki yoon mu jëm ci moom daal lay raxasal fukki bàkkaar daal lay bindal maanaam fay la fukki yiw daa di def sa salaatu goo gii genn benn bi benn bi rek bi nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ne ku goreel fukki jaam ak goreel benn jaam rek daraja daraja ji ni mu toll ibnu ataillahi nee na jëlee na ci sayd ahmad dahlaan mu ne li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man salla alayya marratan waxidatan sallallahu alayhi ashran ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci moom fukki yoon mu ne nit ki bu saxaloon giirug dundam mbooleem xeeti jaamu yàlla yi am yépp muy julli koor natt azka aj makka sarxe ak mbooleem jëf yu baax yi am yépp nga di ko def na mu ware bis bu set bañ koo jëlal mukk sa giirug dund yàlla nangul la lépp taxul mu yem ak benn julli bu yàlla julli ci ki julli ci yonente bi sallallahu alayhi te benn julli rekk la wax de bu yàlla julli ci yow la wax ne mu ëpp fopp fopp fopp mboolem xeeti jaamu yàlla yooyu la nga cay amee sa jërug dund te benn jullit benn julli boo yónnee boo julli ci yónnente bi sallallahu alayhi ci ngay ame fukki julli yoo xam ne ci suñu borom subhanahu wa taala lay bàyyi ko te fukki julli yooyu benn rek nga cay jël ah comparé ko ak mbooleem jaamu yàlla yépp yi am boo ko saxoo woon yàlla nangul la leen mu ne du tax mu yem ak moom te na ko julli gi yàlla di julli ci yow gënee ngëneel la amul fu mu yem mu nekkoon nga xool bu yàlla jullee ci yow fukki yoon nu say xéewal war a toll nga xool bu yàlla jullee ci yow téeméer yoon nu say nga xool bu yàlla julli woon ci yow junni yoon nu say xéewal war a toll nga xol nak yow sa bop kon bo saxoo woon salaatu ala nabi sallallahu nga xamne yàlla kon day saxo julli ci yow nu say xéewal war toll motax al iqlishi waxne ne ayu min arfa wa ayu wasilatin ashfa wa ayu amal anfa min as salati ala man sallallahu alayhi wa alsalati على من صلى الله عليه وجميع ملائكته وخصه بالقربة العظيمة منه في دنياه ban xam xam mo gëna kawé wala wan wasila mo gëna mëna ram wala jën jëf moo ëpp njariñ ci julli gi yàlla di julli ak i malaayikaam ci kiy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne te ci julli googi nga xam ne moom ngay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, yàlla dala ci jegeel ba mu sës ba ba nga sës ci moom adduna ak alaxira al iflis yi teg ci ne fa salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam awamu nuurin wa hiya tijaaratu lati la tamuur وهي كانت هجير الأولياء في المساء والبكور فكن مثابرا على الصلاة على نبيك فبذلك تتطهر من غيك ويزكو منك العمل وتبلغ غاية الأمل وتضيء نور قلبك وتنال مرضاة ربك وتأمن من الأهوال يوم المخاوف والأوجال نينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مو moo gën a màgg leer mooy njaay mi du lamb mukk loo ci joxe ñu fay la ko ci loolu li koy wane mooy li ñu waxoon ne même boo dee ngistal sax ci salaatu alayhi salaam salaam yàlla fay la ko kon mooy loo joxe rek mu fay la ko njaay ma du lamb mukk nee na moo doonoon mbirum awliyaaw yi maanaam gaa yi yàlla yépp mosuñoo teqale ko salaatu alayhi salaam salaam moo doonoon seen aada suba ngoon nee na mu teg ci nag digal ñu ne ñu nañu sax ci salaatu ala nabi alayhi wa sallam mu ne ndax moo lay setal ci mbewte ak bépp taq-taq day sellal say jëf dalay jotale ci lépp loo mébét di duy sa xol ak leer ba mu fees dell mu ne da nga ci amee ngërëmal yàlla dalay fegal tiidma ak njàqare yay xew ëllëg yowmal xiyaam mbokk yi salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ay njariñam foo ko natt wees na ko foo ko natt rek wees na ko te kenn mënta waxtaane lépp ndax li ñu wax lépp buñ ko bëggoon a détaillé ci ay tegtal ak ci na muy doxe na muy demee waxtaan wi dana gudd lool waaye xam naa danañ ci ñëwaat insha allahu sal insha allahu taala yow mi doon déglu waxtaan wi noo ngi lay fàttali nga julli ci ngeen gi mu def sallallahu alayhi wa sallam donte da nga naan sallallahu ala muhammadin wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh